asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit mbokk taalibe yi seen dong la Serigne moo Faye taalibe su Abdoulaye Kim Mbacké ah yéen ñi ma doon laaj ndomba yi booba ba léegi ñu di ko laaj ne ndomba yi daal dañ cee bëgg ñi nga xamante ne ñoo ma doon laaj ndomba yi nag ndomba yi nag wax dëgg fa yàlla bëggoon nañ di ko liggéey waaye dañoo amutoon ndigalu liggéey ndomba yi bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax ku ne xam na ne sama compte bi boo ko toppee ba mu mu jeex kenn gisu ci benn vidéo boo xam ne def naa ko boo xamante ni dugal naa ci lu xeetoo ak ndomba maanaam di ko di ko joxe ndomba yi nag dañ ci amagul woon ndigal ba ñu doo ko jot ndigal bi pour war koo liggéey bàyyi leen ci xel ndomba yi nag moo ngi nii ndomba yi képp koo xamante defaral nañ ko ko ba pare ba mu jël ko ba jëfandikoo ko ba ba mu takk ko incha allahu taala ndomba bi nag lépp la laaju bàyyiwut dara lu jëm ci wàllu kaaraange lépp loo ci soxla mu ngi ci ndomba bi lu jëm ci wàllu ubbeeku lépp loo ci soxla mu ngi ci ndomb bi li ma ci gën a yitteel sax nag mooy prothèse lu jëm ci wàllu prothèse moom wallaahi azim bàyyi leen ci xel ci ne ndomba bi loolu ci la gën a aay ci la gën a doy waar moom kii yaakaar naa ni liñ liggéey bi ñu ngi koy doog a defar noonu ñun ñu ngi ci doog am ndigal doog koy doog a defar fi te ni lii ma ci defar nii dafa ñu ma ko defaral ñu ko moom instant bi mais maa ngi doog am ndigal ci jot ko doo koo mën a liggéey bàyyi leen ci xel te ndomba bi bari nañu ñu bari ñoo te ne ma ko doon déclaré di ma ko wax waaye amuñu guñu woon diggalu liggéey ko waaye noonu ndomba bi nag fi mu toll nii bàyyi leen ci xel ne liggéey bi nag fi mu toll nii incha allahu taala képp koo te ne yàlla dogal na ba nga am ci ndomb bi lépp loo xamante ne nii bokk na ci lu lay yàqal ak yu ni mel incha allah boo ci amee ci ndomb bi di tàqali tàqalikoo loola bàyyi leen ci xel bu baax a baax te la ci gën a neex na ci ndomba bi mooy ndomba bi képp koo xamante ne am na ko musiba buy am du la fa fekk <clears throat> waaw du dafa fekk kon bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ba ngay dem mu xew sa ginnaaw loolu moo ci gën a am sens sécurité bi nga xam ne muy def ci doom ci doomu aadama mën su ko wax nit ba mu xam ko am na ci loo xamante ni nag nit ñi nañ ci bàyyi xel dafa am loo xamante ni dee su ko làmbatu xam-xam dee su ko làmbatu xam-xam da nga koy jarabu muy lu wér péng nga doog nga koy joxe ko ñun ñi di wax ak yéen ndomb bi biñ ko biñ ko defaree suñu bopp lañ ci njëkk a liggéeyal ndax am nañ ci loo xamante ni njëriñ la ca nekk boo ko xamee balaa nga koy defal kenn danga koy defal sa bopp ba noppi te mooy lu kon bàyyi leen ci xel baax a baax a baax a baax liñ leen ci wax nag mu ngi noonu ngeen bàyyee xel bu baax képp koo xam bëgg na ci ndomba yi incha allahu taala bu ñu déggantee dina la ci defaral bu neexee suñu borom nga ko boo ko xasee am nag moom incha allah bul dara bul dara leen daal la ñuy bañ mooy képp koo xamante ne nii maanaam dafa nekk ci tooñ wala mu def naka su dul noonu ndomba bi mënu koo garanti loola bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax a baax waaye fekk yaa ngi nekk ci la nga war nekk jëru ngay dara ci sa bopp daru ngay tiit dara ci sa bopp bërëb boo mënti dugg boo jaaxlee bopp ndombee tëj ko soo ko tëjee jeex na incha allahu taala ku la doon fexeel bu la jëmee bu riiroon si la sax wallahi azim du koy dëpp du ko du sax du ko xam kon nga bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax ndombe bi nag loolu moo ko tax a jóg waaw li koy li li yàq ndombe bi nag laa leen di wax pour ngeen xam ko bu baax ndax bëgg ma nit am ndombe bi dem ba ndombe bi fonctionné tul ci moom mën a nanga ma nanga te fekk na booba daa def lu koy yàq ndombe bii leen doo moo ko yàq muy ñaar yi moo ko yàq mooy takk ko di sëy ak jigéen ndomb bi loolu lay bañ nga takk ndomb bi ba pare mu nekk sa ndigg ngay sëy ak jigéen loolu boo ko defee ndomb bi yàqu na beneen mooy ngay sangu bàyyi ko ci wana bi muy muy wadd ci biir euh, ndox mi nga xam ndoxu sobe la waaw nga sa ngay sangu bàyyi ko mu wadd mu lay mu wadd la di wadd ci biir ndox ma xam te ma ndoxu sobe la su defee loolu bu amee rek xamal ne ndomb bi tamit yàqu na donc bu yeboo nga tuwaat ko bàyyi leen ci xel baax bu fekkee ne da dugg ci duus nag boo ko takkee nag garaawul amul problème mais sangu jël ko wekk ko foo xamante ni dafa am sobe mu wadd ci ndox ma te ndox ma am sobe la boo ko defee ndox ma bi yàqu na ak loolu ma leen wax nii moom moo ko yàq kon bàyyi ci xel jërë ngeen jëf seen dongo la Serigne Modou Faye taalibe Cheikh Abdou ki Mbacké